gars yi bala ñoo sori ñu ñaanal ñaari gaynde yi nga xam ne daanaka yéen seen abon yi nga xam ne yéen a abonné ci seen bii di Aladji Malick TV ak beneen seen bu dul Aladji Malick TV ñaan googee dana am solo ci ñaari gone yi nga xam ne Ligue des champions bi lañ bëgg a continuer coppati ko ndànk mu nekk foo xam ni ca Olympique de Marseille ak jàppale lay doon loolee lañu bëgg indi ci xët woo xam ni ñaar ñii rek lañu ko jagleel te yow bi may seetaan nga topp ma léegi ñu dem ci abonnement yi nga xam ni abone euh, def lu gaaw bu ko defee lépp lu ñu dugal nga mën ko am ndànk-ndànk yow mi ko def ba pare topp ma gaaw ñu dem cant naa leen gërëm leen bu baax a baax yàlla na yàlla dooli leen sutura ak tawféex boo xam ne euh, si ngeen mën a amee lépp lu ngeen bëgg ci àdduna ndax ne yàlla sunu borom euh, mën na ko defal ko ñaari gaynde yi nga xam ne ci kanam tuuti na ma leen ko waxee match boobee euh, mi ngi commencé fii ak 19h maanaam 19h pile lay commencé ci canal. Euh, match ba dana am en direct te it ñu bàyyi ko xel kon kii di Iliman Ndiaye daanaka moom moomee la entraîneur bi def mu nekk ci li nga xam ni daanaka mooy kanamu attaquant yi Ismaïla Sarr Iso nag moom la def ci euh, milieu terrain bi nga xam ne daanaka mooy excentré euh, gauche ca dàbbar ñëpp kanam ba waaye noo sori ci kookee di Ismaïla Sarr Iso ñu dem ci Iliman Ndiaye nga xam daanaka ñetti attaquant yi mu teg saaru milieu la jàpp Iliman Ndiaye waaye boobee day wàggar ni ndànk nag topp ci li nga xam ne mooy ginnaaw attaquant yi loolu bu ngeen gisee coach bi def ko mooy kii di Iliman Ndiaye dafa man bal au pied maanaam def passe yoo xam ne ay profondeur la di ko liggante di ko jox gars yi loolee moo tax kii di entraîneur bi def ko noonu bu jëlee bal rek mu taqar ñu ko rek dugg watek taxas daal di roofal Ismaïla Sarr Iso wala mu ma Aubameyang wala keneen koo xam ni dana ko soxla loolu daanaka mu yitte yi nga xam ni mooy Iliman Ndiaye moom lay doxal bu dee Ismaïla Sarr Iso nag ca côté euh, gauche ba moom dana man di daw di wër yi terrain bi di leen dawloo ba nu xoox bu ko defee ñeneen ñi mën a gis wala tamit bu ko euh, kii di Iliman Ndiaye joxee bal mu mën a dem ak moom lépp daal bu ñu ko boolee ci séngam équipe bi nga xam ni euh, moom la Marseille taxawal équipe bu am doole la bu ngeen gisee ñu yow ci sunu ñaari gaynde yi euh, ndax daanaka bay ci say wewu tànk ndax ñoom lañ fa am te it ñoom lañu bëgg ñu def fa ay ndam yu am